asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum ànduna wërngal képp nuyu nañ leen di leen jaajëfal di leen dalal di leen wax ne Sahel Network TV lay ñoo fi dal si waat si seen beneen pàcc programme si City Affairs tey nag ma fas yéene ànda suma brother suma xarit ñu xamee ko si DJ Oms ah, mu nekk ndaw boo xamante ne muy yëngu fii si biir baañul ñu xamee ko si wàllum DJ mu nekk ndaw boo xamante ne ah, ñëpp naw nañ ko mu nekk ndaw boo xam ne mu xariñ lool si li moo liggéey xam li moo def DJ om maa ngi laa nuyu di la jaajëfal. waaleykum salaam Aduna waaleykum salaam Sahel TV na ngeen def. Uh, ñu ngi fine uh, DJ om pour xuus ak yow si biir waxtaan bi uh, su ma la doon laaj kan mooy DJ Oms. ak DJ Om si lan la moo yëngu. DJ Oms kay mu ngi nii mooy laa gis moom si moo ngi moo ngi nekk di xool nii moo nekk nii waaye naaw nii te moom ngi yëngoo si affaire DJ bi xam nga. Mhm. affaire play music bi nii ak play si radio station si ak yu yëpp. So DJ Um, so how long kañ nga commencé sa music career? maa ngi commencé ma music career since 2015. since 2015 waaw mm-hmm. so DJ Um apart from music yow lan nga dee liggéey. si right now nii nii since. 2015 um, mm-hmm. right now si moom rek laa nekkoon di concentrate avec ah, music. Mm-hmm. yëpp. Oh, so aside from DJ yow dafa mel ni nekkuloo di yëngu dara apart from. DJ si moom rek yaa. Oh, ok waaye yaa ngi wax ne nekkuloo di yëngu si dara waaye aside that gis nañ ne DJ Oms uh, yaa doon liggéey si radio uh, ñu xame ko si Capital FM uh, popularly known as Capital FM waa yaa fa doon liggéey tey ñu gis ne nekkatuloo di liggéey Capital FM lu waral loolu. non jaamu rek jaamu la rek. waaw just mama toog toog rek relax daf la neex rek. non dafa neex dafa baabali. non du loolu sax. amaa toog rek because suma time mayuma ko xam nga because sax dama dee over busy so ak yooyu noonu te pare time bu ma gaa yi coow doo muy kuloon Sundays la woon waaye gis ne dama xam tam ma demee soo sambi nii su ma waree eew wala waree saaraan ak yooyu moo tax nga correct that job DJ Amz gis ne nga nekk doomi Banjul fii di yëngoo biir su ma la doon laaj tey yow yan gis-gis nga gis Banjul ban développement la Banjul soxla right now fii nii ñun baañu sola ñu soxla mooy ni like ndimbal rek sola soxla. bal yu mel naka. ndimbal comme like comme loolu nekk def ni right now studio. Mhm. radio stations wa ak sound system ak yu ak hall bu correct. Mm. ni ni ne Banjul mom amut hall bu correct amul hall bu correct so yéen ndimbal boobu ngeen soxla loolu lañ sola legi yéen government bi su waro na ñëw tey mu ne dafa bëgg a dimbale ndaw yi anam ngeen foog ne la wara a jël ak yéen jéego la wara dox pour ah lu mu war a bari na because of right now nii su gars yi tegee yenn amal yoon ak les musique yu ne boobu strong right now. waaw ba ngaa gis comme like kenn ku war a am suuf right now da ngaa xam nga da ngaa dem sign bindal yow kenn rek a war mhm. a am soo bàyyi soo bàyyi xel fii right now ay na yéen a suu yoo xam ne ni fii ko sax dama feet ci bokk di xam ne fii ñëpp leen xam nga so da ngay ski nii dafa am nii ci li fi am fii ne ci te Banjul mhm. mhm. so amee benn comme let's say musique yi ñoom boo xam ne comme dafa am ñu yow soo amee soo soo nii yow rek yaa war a play di same thing comme let's say ñu ne um, korite second day mm. yow rek yaa war a play third day kii ak ñëpp ñu mun a mayante because soo bàyyee xel fii nii am ay DJ yu bëri yu nekk fii baa ñu am na feeñuñ sax mm-hmm. am na ñu ndaw am ñu mag mm-hmm. so da a a ji seen mm-hmm. um, xam ne comme lu DJ a soxla fii baa ñu fii nii mun nga koo use after nga delloo ko waan kay comme dafa dem ak ñëw ra xam nga so loolu si développement bi la bokk et puis studio correct studio by this station. because Banjul fii talent bi mu ngi fii. right now fii nii fii ndaw yi am nañ xel ndi xalaat lu nekk soo ko bàyyee si artiste yi sa right now fii nii fii koo gis rek mu ngi yëngu si dara artiste or mm-hmm. waaw so Banjul ñun daal lu leen soxla ndimbal. Mm-hmm. ndimbal bu strong. comme comme comme ni nga ko waxee si biir loolu gis naa nga ne comme kii su mayee kii mu def first day kii def second day waaye man gisuma loolu man dem naa ba gis ne dañ dee gis ne comme tey yow like DJ Mousse dafa ren full hall pour iya bi yëpp maanaam ku soxla moom du mun a am de moom Kena rek mooy pilier yow loolu lan nga si mun a wax comme yow ni nga ko waxee am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi soxla pour génn nit ñi xam leen waaye dangaa gis benn DJ bi rek mooy koñe xool bi yëpp ah book fa whole year bi di def show yam yenn saa yi sax da nga am pour dem si moom di def négociation pour mu may la pour benn fan nga mun faa def sa event yow loolu lan nga si mun a wax. Ah, la waaye foog ma ne DJ mos musaa def loolu noonu de. Hmm. yee da ngaa baal DJ Mouss wala. non baaluma DJ moom foofu la nekk lu xew la lu xew lu xamul lay wax. DJ Mouss ma la DJ Mouss. after DJ Mouss mën nga bu lu ko ëpp sax. lu mu bon bon xam naa ko bu baax a baax ñun mosuñoo toog ba pour xool see bug fii bug fii pour effet bi ñu ko pli. waaw ñu soo yoo soo bàyyi xel ever since ñu fii DJ Mouss ne gën a dégga. kese kese. waaw moom rek nga daan téye waaw amoon na temps wala nekk rek temps la. waaw yow doo doo mun a nekk fii njoo nga nekk njiit forever amoo fenn kenn ñaanu ko yàlla tamit. waaw. soo gis nañ ci biir loolu noonu yaa ngi under DJ Moose. ñu gis ne ñi na nekk Bullet Sound movement. through that Bullet Sound uh, gis nañ ne DJ Moose moo tax ñu ne Bullet Sound. waaye tey ku ne Bullet Sound ne DJ Oms. ku ne bullet sound fu nekk DJ Oms rek ngaa dégg di Banjul fii muy fu nekk ah, gis nañ ne génn ngeen def nga programme fu nekk génne nga fu nekk as a young Gambian ah, yaa ngi am talent bi mm-hmm. léegi gis nañ ne DJ Moussa moom du yëngu si bagage bi bu baax ku ne bullet sound rek ne DJ Oms lu waral loolu sa xarañte moo tax wala sa njàmbaarte moo la ko ah, may. loolu moom yëpp yàlla la. yàlla mm-hmm. def everything will happen. Mm-hmm. waaw waaw ba pare tam ngi shout out to DJ Moussa tamit ak Pele. waaw ñooñu suma main a poussé DJ bi di mm. yee si tamit si la oh, ok mu doon lu am am solo euh, ñu gis ne comme tamit sa biir DJ bi euh, nga ne yow DJ Mouss moo la pousse si musique DJ Mouss moom moo la moo la moom moom moo la inspire daal ba yow nga war a toog tey nekk euh, DJ mu doon lu am am solo biir baañul léegi suñ la waroon a laaj DJ Oms tey nguur bi wax nga ne yéen soxla ngeen dimbal si nguur bi. mu doon lu am am solo léegi tey yow DJ Oms ma la waroon a laaj am nga jabar non avant que mu accapaar. ah lu waral loolu process léegi tey mu am léegi tey. léegi tey euh, ah. maanaam mooy am na ko nekk si line bi. am na ko nekk si line bi kañ. mooy kan. Eh, kooku. kooku kan. aywa eh, kooku de pour man de ñuy ñuy seetaan ah, viewers yi ñoom ñoo bëgg nga leeralal leen DJ Oms fu mu nekk nii kan moo nekk on the pipeline. ban sama jaam ñëpp xam nañ ko. mooy kan. yaagu ñun xamuñ ko ah, yaagu. waaw ah, yaagu sooy seetaan lii mbégte la si yow. waaw DJ Oms toog na fi ne yaagu mooy jàngaa. macha allah <laughs> kontaan naa si loolu torop léegi ñu gis ne DJ Oms léegi yow tey suñ la nee next five years fan ngaa séntu sa boppa ah next five years moom xam nga lu nekk rek si yàlla la. yee su ma yàlla dibalee moom moom dégg dégg dañoo jënd a puus si kaw a kaw kaw ba nekk ay international ak yooyu noonu. waaw loolu moom bokk nañ ko trop trop waaye nga tam lu yàlla tudda moo dee am. so ñu gis ne coronavirus mu ngi nekk feebar boo xam ne lëmbee na àdduna bi yëpp ñëpp ñu ngi koo coow yow coronavirus ban façon yi uh, uh, impact la def yow ban ban façon yi challenges nga nekk di face right now as a DJ coronavirus bi dugga nekkatuloo di def dara yaa ngi toog benn place tey yow lan lan ngaa wasi loolu. corona bi kay moom nekk nii comme àdduna bi ñu la jaar nekk nii. Mm-hmm. yëpp a stop. soo bàyyi xel suma maas yi DJ suma mbokk yi DJ ñu ngi sonal rek non bu def dara. yéen na ngeen sonal nii xanaa toog kër waa parce que luñ la every week yaa ngi play every week yaa ngi play. xam hmm. nga. Mhm. soo soo toogee les eh, ay two months yoo demuloo fenn yaa ngi mhm. toog. da ngaa fil sa bopp soo di main thing loo mën a def mooy comme toog sa kër. mun faa play. di am phone ak yooyu def ko si def nga def Facebook live ak Instagram ak yooyu noonu. so yow mi mi ne da dee da dee def lu mel noonu comme ngay play live kër nit ñi di la seetaan. waaw benn benn loolu just ma koy def ah, most likely si rajo bi laa koy defee ay dafa nga ma ko kër. so lan moo nekk sa Instagram page ak sa Facebook page pour ñu laa seetaan suñ la bëggee follow up DJ Omzy Gassama mooy e e A mooy sa da nga bind D O M Z Y. Oh, sa. Ah, sa Instagram ak Facebook bi yëpp yow. Oh, ok mu doon lu am solo DJ Oms tey xam nga gis nañ ne yow borom time nga ah borom eh, borom borom ite nga tey mënuñ la fee téye lu bari. Mm-hmm. moo nekk si ndaw yu nga xamante ne ñu ngi yëngu biir Banjul ñu nekk ñu try xool yi nekk benn. Mm-hmm. waaw ñu unite nekk benn ñëpp. waaw ñu am link bu correct both artist ak both DJ. Mm-hmm. su nekkee benn rek. baa ngi defaaree si kanam. waaw ba pare ñuy bàyyi di déglu comme wax yi nekk si biti. waaw xam nga rek comme ni la ko waxee woon rek fii ñun ñëpp ñoo bokk fans. Mhm. paa ñu soo ko bàyyee xel yow sooy ànd ak kii kële saa waay saa waay la DJ bi saa la. soo su nekkee tuggee la ah baa ñu dafa gën a dem kanam. et e pare boo xoolee comme like yow kii bëgg nga feeñ mu ngi am dégg bu correction yow nga ko xataraayoo ak yooyu suñ ko mhm. stoppé. tanga cewa eh, a good chase nga spanyol fi right now no dem kanam bu baax a baax bu baax ba ah wel bokay ñoko digal ko mu don lu am solo man nak bala nga dem bu gëna la laaj dara comme eh, man mom suma way nga bu gëna DJ Oms yow lan mo la gëna a naxari sa aduna sa bir dunda lo xamne soko xalaté sa xol bi daf dee naxari waaw bari nañ won ma ci bena bena moy comme like comme nga trust nit mhm. nga wax ko sa everything Apa nga tosi bitinga ay diga comme les nit ñi ngay wax si bon nga sa ganaw loolu ne mosuloo ko expecta kon yow dafa mel eh, ni am na ku la def dara ba nga xam ne kenn defuma dara just tam lu laa dinaa xiit lu xàpp naa gul man mhm. man dama buka luy xàppun laa bëgg nga wax ma loo xam ne yow soo toogee nga xalaat ko eh, daf dee indi sadness si sa life bi dara du la dee saf si àdduna mooy comme lay du ma ñàkkee suma daal ak suma yaay rek wala loolu laa dinaa xalaat suma xalaatee loolu rek dama dee mun a muudi instant hmm. waaye léegi tey ko am lu la naxari nga war a am lu la neex euh, man dama bëggoon nga wax ma DJ si yow lan moo la gën a neex sa àdduna loo xam ne soo ko xalaatee foo toog da nga dee kontaan. mooy toog ak jugee ak ñi suma boy yëpp campé. Mhm. ñoo xam ne comme ni ngi clean si yow. Mhm. indiwul loo mhm. waaw man su ma toogee suma réel nigga si nii rek na suma comme ñoo xam ne suñu childhood ni ngay commencé ñoom émission daanaa nii ak yooyu waaye fi ñu bari tukki neen taw. ñoom jaanee xam nga. waaw ñoom Demba Gueye filim ni leen ni leen xam mm-hmm. nga. waaw ñooñu su ma toogee suma boy homies mm-hmm. yi. ñoom i boy Camara. Mm-hmm. ak ñoom Pambay. everybody. su ma toogee gars yi nii. dama dee happy dama xam ne comme daal ñooñu yëpp ñu la indi jaama. dama dee fay mu la street. Euh, mu doon lu am solo lu nekk euh, dem delsiwaat dina am ñu hmm. amoon fi tey DJ Oms ñoo ko digandoor ñoom ñoom tamit ñu ngi wax government bi ah, di di ñaan government bi na leen dimbali ah, si ay matuwaay yoo xam ne mun nañ koo use pour ñu njëriñoo si njëriñ askan bi because gis nañ ku nekk ak si li nga yëngu ma di leen wax ne jërë ngeen jëf ah, dina delsiwaat si kër bi daal because xam naa ne du fi gan ñu dem delsiwaat di leen wax jëri ngeen jëf ngeen jëf